be nga ya juma jura cosaan xeɗaan rooga damtin Pa Moussa Sapeur Mame mam fa de mom moy beram borom lu ñuul li gaynaa ko moy beram borom lu xonq li sanya be nga ya juma jura ro ka dam ci Souley sanya Gilas ñu koy ziar attention kusa border na Mame Fadé Diop naa ku daan na Mame Fadé doy naa kusa border na Mame Fadé